gasoil bi ñu yokk itam ci la liggéey yàq a yàq liggéey bi ci la bokk. waaw ñun chauffeur taxi de moom problème mu am mooy bi cher na trop trop trop trop maanaam ni nga ci doon génnee léegi ak ni ñu yokk gasoil moom metti lool lool waaw daanaka da daw ba ngoon pour nga am sax loo sor carburant sax mooy loolu parce que yokk gasoil moom yëg ko trop trop trop trop sax waaw ak ni dëkk bi tooyee tamit en même temps ni dem bi doon gaaw dem dootul gaaw parce que fi ñu fay. nga defa war a dem léegi li ñu doon fay la ñuy bëgg di continuer di fay mais yoon bi nga doon jaar pour dem fa léegi il faut ngay wëri te loolu tamit da si feeñ si consommation bi daal ndax di nga yokk course bi nga doon dox mais clients yi duñu yokk leen doon fay loolu tamit maanaam da ciy feeñ bu baax a baax a baax daal day day xaw a jafe liggéey bi daal yooyu tamit ñu ngi koy jànkonteel daal. yoon yi baaxul ndox mi bari na ah, ni daal amul wax dëgg yàlla. waaw li ñu jànkonteel moom bari na ci gasoil bu seer bi. taximètre moom yoon yi baaxuñu ndox mi bari na te fi mu nii actuellement affaire yi maanaam daal dëgër na dëgëraay boo xamante nii yéeme na parce que yoon yi amuñu ay yoon yuñ jaar parce que tër yi bëri wuñ. parce que fin de ne taximan bi di nga fay 3 millions yoo xam ne maire bi nga koy fay dem dagg ko muy ay droit chaque fin de mois bu ne taximan mu ne di nga dem dagg ko. 3000 la maire nga koy dagge walla nga dem buntu visite bu police ba ñu daggal la ko chaque fin de mois moom ñu ngi koy dugal moom taxi boo gis fii muy daw rek da koy fay. yokk nañu gasoil bi en même temps ah li wax ci droit yi man lu ma jaaxal la parce que ay droit boo koy dagg boo seere droit droit di jëlëb client waruñu laa jàpp mais fii dangay ngay seere droit di jëlëb client police bi ñëw ne la lu tax nga taxaw fii droit de stationnement boo déggee ñu di ko wax ah maanaam nga droité jël client bi mais fu la fekk ngay jël client bi dan lay daane loolu xam nga moom doy na waar lool. bu waaw ba yokkuwul moom heure bi wax de yàlla daana daana tànnee bu baax waaye ren di moom dafa gën a dëgër moom waaw. te moom moom wax yàlla doy na war daal. côté police bi moom xaw naa metti trop trop trop xaw naa metti daal parce que dañ lay jàpp jël say kayit duñ la bindal attestation duñ la defal dara nga toppa si di tourner. xam nga da ngay wër ba son en même temps bu fekkoon nañ lay jàpp attesté la sax nga dem fay fay googu di nga gis sa bopp parce que yaa ngi xalaat ni tali bu tojee si lañ koy defar lampe bu coupé si lañ koy defar ak yeneen ak yeneen yaa ngi gisaat sa bopp mais da nga gis koo xam ne lay jàpp sa jàpp bi teguwul fenn mu ñëw jël say pièces fa mu mujjee yow mooy jox ma 2000 2000 xam ne duñ ko bind amul fenn fu ñu koy bind amul benn këyit mu leer nañ kii 2000 yi nga koy jox moom da koy lekk moom waaw da koy lekk ti gënu la see yow mi xamante ni yow yaa ko liggéey xam nga loolu tamit moom metti na trop njàpp mi moom metti na foo taxaw ñu jàppale te yaa ngi dafay droit yaa ngi dagg droit chaque fin de mois ah bu la jàppee tey daggooy droit dañ lay fayee ko 3000 def seen poos nga dem daggi 3000 ay droit wala nga dem dagg droit 3000 ñëw jox leen 2000 muy 5000 ci dëkk bi demeewul noonu ci 2000 yooyu duñ ko duñ ko bind fenn xam nga loolu tamit metti na aussi daal. droit yéen moom gisuñu liñ liñ tax ñu dagg ko moom gisaguñ ko moom ndax foo taxaw taxaw fii. alkaati da lay jàpp ci te yaa ngi am droit droit yi lim lay may mooy yow boo dee liggéey da ngaa war a fu ñu la arrêté fa la ki lay arrêté nga taxaw jël ko continuer taxawoo fenn seer waaw. kon nag ñun droit yi ñuy dagg daanaka gisuñu suñu bopp amuluñu njëriñ ndax defaruñu tëli yi defaruñu amul ñu benn njëriñ daal. génn bi nag taxu koo demee noonu daal parce que metti na trop ndax euh, njàpp mi ci am ak yooyu yëpp day xaw a metti daal maanaam génne gi moom ni ñu ci doon génne moom wax dëgg yàlla jamono yi moom par rapport daal ak yokkute gasoil tamit daf cee feeñ.